salaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk àdduna ñoo ngi fii nii ci baari Ndondol suñu kilifa bi ñu toogal di waajur bu góoru Serigne Khadim Ngom Matlabul ni boroom jaaro bi sëriñ xaadim nag demoon fale nga xam ne moo di Gabon topp tànku sëriñ tuubaay yi ba tey mu ñëw ay mbokkam di ko màggal teeru ko teeru bu rëy bu toll nii te ñu ñëw ci ay waajuram bu góor ñuko gisi doon gis ci internet bi yalla suñu borom daf ñu mom ak mom tay ngir waxtaan ak mom ci domam nan la yare domam ak l'islam bi nga xamanteni domam fek nako ci bir kër gi bo gën ko suxat lool yëpp ñu fas waxtaan ko ak wajuram bu gor seigne Omar dañ koy bàyyi mu nyutogaduk rek ñu doga dug ci question yi inshallah papa ñu ngi lay noyu bu baax. alaykum assalam wa rahmatullah nga ndongali di fay te di leen dalal. ndax bisimillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin rahmaani rahim maliki yawmi diini iyyaka nahbudu wa iyyaka nasta'in ihdina siraatal ma siraatal lazina an'amta alayhim xayril maghdubi alayhim wala daalin barke borom Touba barke borom Touba barke maam Cheikh Fall waaw ndongoli bisimilah. bisimilah kon Seydina Omar euh, kii mooy waajuru Serigne Khadim Ngom borom jaaro bi bu ñu toogee moom nag dañ koy laaj balaa ñu koo laaj dara. dañ koy njëkk a laaj fi nga xam ne Serigne Khadim demoon na fa bi muy dem taggu la ak bi mu ñëwee nga gisaat ko lan la def ci yow papa. waaw alhamdulilah rabil alamin foofu mu demoon day lu dul ak cant jëlewuñ ko fa nun ñëpp nag ak waa réew mépp nag ak waa dëkkandoom yi nga xam ne yii ñoom ñëpp xam naa ne boo leen intervenir dinañ la ci wax lu bare bare ndax kat euh, Serigne Khadim foofu mu demoon. sunu maam mu du ngoom mi nga xam ne moo jur Moor ngoom mi ma juru man mii toog fii la dox ak tànkam fekk sëñ Touba ca baraag ba njaareem ne ko alamtu si sama maam du ngoom sëñ Touba laaj ko ne ko noo tudd mun a ñox ñoxor laa tudd sëñ Touba tudde ko boppam. ma gane àddina ca jamono yi nga xam ne bii moom la sama maam nekke woon fii man mii mu tudde ma boppam Mouhamadou Bamba Ngom moo ne ci samay kayit boo déggee ñu naa Mamadou Xaadim Momadou yi dañ fi bari mais Momadou man boo ñëwoon fi ne xaadim man mii la ñuy dal di andi waaye kooku moom Momadou xaadim Momadoum xaadim yaa ngi dégg Momadoum xaadim suma Momadou la. sunu sama Momadou sama Momadou nag su ma ko waxee sëñ Tuubaa daf ma ci gën a dëggal gën ma cee jàppandal won ma li ma gën a bëgg lépp mu téye ko fukki loxoom ak ñaar fukki loxoom ak ñaar li may wax it àddina bépp laa koy seere école bu ma mës a nekk mboolem ña fa nekk ñëpp kenn du ko ci moom. mbindum càmmoñ la noon de. Mhm. waaye Serigne Touba nekkete boppam daraam dadul asaar. dafa waaxu fet ma Pikine sama kër. Ecotaaf mhm. mu ñëw ne ma bàyyi ma ne Mbàkke mu ne ma bés ni ki tey damaa bëgg a bàyyi mbindum càmmoñ. ma ne ko loolu nag mu ne ma damaa bëgg a jëblu man taalibu sëñ Fallou laa mhm. ndax nun waa Daaru Xuddos lañu sama maam la sëñ Touba jëloon boole ko sëñ Moudou Moustapha man mi sëñ Cheikh Aliou Mbacke lañ ma yarandoog moom xamuñu fenn lu du Daaru Xuddos ma ne ko am maam sëñ fallu day mu ne ma ne ko sama xarit benn bakkan la te sëñ Aliou ma boole woon ak moom kon demal fekki ko ba mu demee maam Mor da ko ne kaay mu ne ah mu ne ko yow doom nga ci biir kër gi maam Moram sëñ Fall loolu la ko daal di wax ne ko yot teg ko ci wetam sëñ euh, sëñ Xaadim nag sëñ Tuubaa ko def loolu nii mu mel. ndax muy mbindum càmmoñ miinoon na ko lool fii nag la dalee baasin mi mën a nag ba sori lool ci alxuraan waaye nag mbindum càmmoñ moom demoon na ji boo xam naa ne bii euh, li jaasaam moom su ko toppoon na mu ko war a toppee kenn du ko ci mon waaye nag li ko sëñ Tuubaa doon woon ak la mu ko doon sédd moo tax mu daal di bàyyi loolee lépp jàpp sëñ muy lu wér nag euh, li ma la ci mën a wax nag moom samay doom yëpp nag laa lay wax ñoom ñëpp nag soo déggee su ma toogee ñoom sëñ bi giñ naa ko sëñ Tuubaa bu ñu ma yéexee noonu sax sama bëgg a jóg rek bàyyi lii ma doon def de bërët dem seeti leen ndax damay xool ci ñoom sëñ Tuubaa ñuy xool ci man sëñ Tuubaa ma jàppe leen sëñ Tuubaa ñu jàppe ma sëñ Tuubaa dégg nga ni ma lay wax lii moo tax sama diggante ak samay doom amul arrêt te du ko am mukk ba fa kanamu sëñ Tuubaa waaw ndax kat euh, li ko tax ñoom amul kenn koo ci fekk mu ngàbbab cigarette amul kenn koo ci xam ne bii manqué na imaam amul kenn koo ci xam mu ñëw te ne waa kii murit saadix la kon su ma sëñ Tuubaa seddee loolu ci ñoom ñu ngi samay tuut tànk sëñ bi ñaay naan laa war a mel ci ñoom waaw macha allah <laughs> <laughs> nan laa war a mel ci ñoom. ñu boole ko nag ñoom def sa def mab jëwri ndax kër gi kër si wallaay asim ñi mboolem lu sant Mbàkke toog fi bu fi jógee dama naa fi ma xam nga ne amu fi dara. Hmm? ma ne ndokk ne ma fii kër sëñ Tuubaa la. du da ngeen ñëw ak seen i tànk di fi dox. Hmm. dox leen ci ak tànk kese rek ci biir kër gi ba ren di déwén ñu xool man man télé laay wax. barke sëñ Modou Moustapha Mbacke ku dugg ci kër sëñ Touba gi ba ba ren ba déwén te yokk wu ma xaj ci sëñ Touba. Omar de man dootuma sol samay dal ba dootuma ko def. barke sëñ Tuubaa Mbàkke. bu doguma la papa bi ma jógee ci yow léegi di demaat ca kër ga. waaw tànku neen laa demee boo ñëwaat. <laughs> waaw waaw lii may wax tele laay wax de. mën na maa giñ ci sëñ Tuubaa Mbàkke ni ñi fi daan ñëw ñëpp kenn ku ci nekk da ngay yokk ba yëgal ko sa bopp. fukki kàttaa giris ak benn yeewu ci mbindum camuñ ma yeewu fi dara nag. samay doom yëpp nag sëñ Tuubaa dong. kenn ku ci nekk nag it ka nga ndey ak baay ak ka nga bokkal baay mënoo leen xàmme waaw kenn mënoo leen ci xàmme kenn kii day jënd oto 3 millions may magam magam walbati ko jënd 3 millions walbati ko at mu jëndaat oto jox kale te ñoom ñëpp mbirum càmmoñ ñëwu ci sëñ Tuubaa rek kon sëñ Tuubaa woon loolu ba ci sama doomi baay Mamadou Xaadim biig la kiti caabi oto ne ko am addiyaay sëñ Tuubaa sama doom baay la ko defal waaw kon loolu ñoom nan nag damaa amul kenn kii toog nii nag maak moom ñoo bokk benn ndey ak benn baay kii nag sama rakk la kale mooy jarbaatub ñoom Mamadou Xaadim ñoom kii nag mooy sama mag man jëm jee toog na moom it kenn ku ci ne mën ngeen ndax ñoom ñoo maase nun waaw kon sunu borom dogale ngeen ñëw di laajte yooyu yëpp dama leen koy leeralal njaay yàlla na suñu borom guddal fan yi. mais diggante ak sëñ Xaadim. kaf bi waaw ci TikTok bi. sax ñu ay morom lañu papa lan moo andi sëñ Touba ko indi <laughs> sëñ Touba ko bu may noyu nii. bu ma ko laxasuwul. Euh, sama xol bi li am lu ci des. allahu akbar waaw moom bu ma nuyoo rek. ba nii mu yegg si nii léegi ànd ak mbooloo bi ñëw nuyu ma avant muy laata dem dama koo laxasu. waaw sama xol bi du ko mën a sedd. guy mu dem. papa dafa mel ni da nga am sa doom mais dafa am cofeel boo yegg sa diggante seen boo ko gisee. bu rëy rëy rëy rëy sëñ dong nag la. du dara nag du lan nag lu mu am. Mhm. loo xam ne bii gis naa ko lu dul waaw sëñ Tuubaa do nga tax lolé de ndax man damay gis mu nga faral ko laaj adiya waaw mu jox la ba paré nga wat lu lu ko op waaw ne ko mu ngi ni yor na ko. mais dama la don test rek. waaw xam sa gem gem waaw. waaw lolou lepp it ko diko ko rek. ndax euh, su fekkee ne yor na ay mhm. million. man xamna yor na million man. man ma million du dara ci man. ndax bama ko yor bobu ñom juddu wuñu bañ na ko sax ba ñom ñep sama bay fi la daan tok ñi ñep woon na ma xaalisu forot la leen genté ñom ñep fële dóor bu mag laa woon diggante Farafeñe ak Ngunu maan Jaxanoor ba Palmarin fu ma ci dawalul oto amul gaar sarse ba mu fees dal jëm Touba ñëpp xam nañ ma ci xaalis forot laa ngénte ñoom ñëpp waaye ba sëñ Touba ñëwee la ko namm nag dañ ko daal di leen avancé fële nag xalima geeg sunguf seeg ren si lu commencé dox waaw waaw rek nag demuñu fenn nag jàpp ci sëñ Touba nag mooy ci sëñ Touba rek waaw bu ma ko ay moom xam nga fukki junni la ma daan jox ma bañ. waaw nekko ko dootoo ma jox fukki junni. ñaata la lay ñaar fukki junni. jëm kaw jëm kaw. <laughs> Ah, ah, daf maa jox fukki junni ma bañ. dugal sama loxo mos génne million ne gisoo lii maa ko moom. waaye lii damaa lànk danga may jox mi ñaar fukki junni. mu mu ñaar fukki junni jox ma dugal ci sama poos. en tout cas foofu laa ko maye ba may laata dem sax. cent mille ko maye bu jee waaye sëñ Tuubaa laa seet xam ndax moom mii. mi ngi ci moom wala déet. te booba leer na ma ne mi ngi denc million mhm. waaw man mi bàyyam nag bu ma laaj mi oto bi may waat it nag wax dëgg moo ko jënd ma ko jënd 4 millions jox ma. waaw bu oto bees teq rek caabi yi teg ci sama loxo. waaye nag boobu am naa sama benn taaw bu góor boo xam ne bii jibi mhm. jibi Baye Fall ki ñu wax jibi Baye Fall. Baye Fall wax baayam moo may dawalal sama oto. Mhm. mooy sama chauffeur. Mhm. mooy jënd gasoil mooy wiide oto bi moo koy raxas mooy fay paya toog ci sama oto jaaxaan dong laa ne ak moom. bi moom ma du jënd. moo ma njëkkal BM BM bi ma njëkkoon a yor. bu ñuul bi jibi Baye moo ko jëndoon. te jox na ma fukki nag ak ñett. si màggal gi may def le 25 décembre Mamadou ñaari yoon ñaari at yi la ko la gun la ko nangoogun rek. waaw waaye nag béccu laa ko tudd ndax bu demee ci dara bi naa nag yi fi ëpp laa soxla. ñu ne ko yee ñoo fi ëpp mu jën ñoom ñaar yëpp ay ci oto yi ñoo ne ma baay at yi jàngi nii. lu tax du sëñ Tuubaa jërëjëf Ndiaye. <laughs> man damay damay damay am lu may gis seen diggante ak sëñ xaadim mooy mbégte mi sëñ Muntaxa mënul wax ñaari baat to reetaanul kon reetaan ñuy gis si sëñ xaadim di ko ci waajuram la ko jëlee. <laughs> waaw waaw xam nga loolu nag sëñ bi. Euh, da xol bu ca kiñaan jóge wee moom il faut rek xam nga la cay des. te bu ca gëma di jóge wee mm. gëm sax gëm sëñ Tuubaa rek sax fa borom dara du naqari foo tollu xol bi day bànneexu rek day bànneexu te nun nag da di mun bu nu tuddee sëñ Tuubaa day mel ni suukar soo xam da nga ko tabal ci biir ndox waaw. kontaan nañ ci <laughs> naa balaa ñoo dem dina dinañu ñëw talal loxo nga ñaanal ñu. ndax suñuy seen yi gën a yokku. waaw ci barke borom Touba. waaw naa seetlu si moom loo xam ne gis naa ko. muy jëm bi. gis naa ci dëkk mu yor kaamir. jagal ki sama mag la batiku jox ma tawam ma yor ko du sama goro de sama mag mag la ko def ha di ko ñaaral kay mu gëna guddu fan wër ak wérle ak njabotam li li nga wax ci nak mo ne ak li nga gis mo ne fim ni amul kenn ko xamni ni muy muy muy muy man mi muy kenen ku ñew ci mom ben ngeen doon ba ngay ñibbi doxante rek lañ fi nekk waaw li nga gis ci diktagu loolu la nekk ak ay njabootam ñun ñi ñëpp nag ci barke Seexul Xadim waaw tooñante fo ree loolu lañ nekk ak ñun moom kii ku ñàkk ki naañ la <laughs> te moo ñu uuf ñun ñëpp nag waaw teguñ ci yoonu siraatal mustaqim dañu wax xam-xam dañu jox xam-xam di ko ñaanal nag mu yàgg fi lool ngom te ànd ak wér barke Seexul Xadim ak yéen taawam laa yor de waaye mu ngi mel ni buñ toogee du goro de man sama mag sama mag la parce que ñu bàyyi dañu ci mam ya kon nak sama mag la mag la ko def itam mom dafa ma goro dafa goro de mag la ma def wa ngom, yoy itam am nga tiant euh, parce que am nga tiant moy lan man dama gis lo xamni ni sa xol nga ko don wax ci ma di TikTok bi bu ma la ki bes mu ko na naa gis na ko sante xam nga no lu mu def na ñew bu ci fofu baari ndondol ah loolu laa seede gis naa ko cam yu barke Sewol Xadim dama ko yàgg a sob yu barke Sewol Xadim defal la taxawaay bu ëpp tay li ngay yokk sa fan yokk sa wër yokk sa wër ak sa njaboot yàlla na ko yàlla defal mën na ko yàlla na ko def ci barke Sewol Xadim parce que ku baax nga ku baax rek mooy gis nit bëgg ko ci dëgg ak bëgg Sëñ Tuubaa déggu ci ku baax koy topp ku dul ku baax bëggoo lu baax doo ko def dégg nga te looloo nga ci maa ngi doog xam ne waa ji <laughs> moom laa la bëggoon wax léegi. dama ko woo dama ciy woote ci numéro yi muy affiché. waaw du ko mën a jot. waaw may jot ay ndawam. ma xam ne kii comme dafa bëgg Serigne Touba. xaaral ma jaar ko ci Serigne Touba. ci laa jël maay bu ma doon jàng. chaque saa yu ma xëyee. ma taf ko. ne ko Serigne Khadim saa yu ma la gisee. lii laa la jox addee Serigne Touba. ñaari fan lañu ci teg mu woo ma. bi may ñëw itam. andil naa ko mat matlabul fawsayni. andil naa ko jaalibatul muraqib. andil naa ko mawaahibu jox ko addiya fekk ko ci néegam léegi jox ko ko waaw <laughs> te loolu doon lañu bëgg nag wallaay loolee nag mat la bul fa sëy nu booba mhm. man day wax dëgg maa ko ma maa ko meññe waaye neew na ku ma mos a gis mu tudd ab xasaayit mhm. doomu aadama lu dul ma faw sëy ni ma le mu ko tudde faw sëy ni ba mu ganewee àddina ñëw ñu ma bëgg tudd doom ju ñu tudd maa ñëw tudd mu ne ma faw sëñ ne ma tudd faw sëñ laa koy tuddee ñu ko ah sëñ bi na de mbaa mbaa lii dina ko attan mu ne ma mu ne mu ne ma sëñ tubaa ko sëñ tubaa ma ko jox ma ne ko acca bisimilaay mat la bul faw sëy ni mooy faw sëy ni mii mu yoree tey waaw ma xam ne bëgg na faw sëy ni bëggal goo xam ne bii sëñ tubaa mun doon ko ñàkk def nii mu mudu def doo toj ba asamaan set dara du doon liggéeyam du jàng xasaay du ko gastu rek sama waa kër ñëpp mbaa que xam nga ne Mamadou moom sama doom ji nga xam ne cinquième licence la génne ndar bac ma devis la ko am muy Ibrahima Khalil est-ce que xam nga ne moo moo ko sutu aw jàng te kenn ku ci ne mbindum càmmoñ nga mii noonu sëñ Tuubaa leen defal loolu ah dem ba war a am bac devis dem ba am cinquième licence moom ba nii Macky Sall gaañu nii heure bu mosoon a kay tam dañ koy ree ñu ko tànk wàññi woo diplôme yi kenn du lay jël mu ne kenn du ko wàññi ma ne ko kaay sëñ Tuubaa li mu joxe sa li mu li mu joxe li mbindum càmmoñ mi ci gën a tuuti fii de lañ toog. waaw ah, sëñ Tuubaa rek <laughs> waaw introduire sama aja jërëjëf aja papa dégg nga kàddu yi nga xamante ni sëñ bi yëkkati na ko ci bés bi mhm. waaw euh, ansu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmaani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata mustaqima sirata allazina an'amta alayhim xayrin maxdab alhim wala daalin amin barke sëñ Cheikh Aliou Mbacke borom Daaru Khoudoss barke sëñ Cheikh Aliou Mbacke borom Daaru Khoudoss barke Cheikhul Khadim eh, xanaa di sant di gërëm rek sunu kilifa gu mag gi nga xam ne tey moo doon sunu bunt ci sëñ Touba doon sunu mag ñu bokk ndey ak baay man na xëy na may caat mi waaye maay taalibe bi maag ay affaire yi maag ak rakk moom ay njuureel rek yooyu dañ koy jël teg ko fële ñun sëñ Touba la ñuy dund. sunu lépp sëñ tubaa la bon li tax kër gi mel ni mu mel kenn ku ne day wér sa kenn ku ne day wér ci sa morom sëriñ Tuubaa kon moo tax maanaam kër gi mel ni mu mel rak ak mag ak doom ak wéju rek ñun ak taalibe rek ci la ñuy dund ak taalibe rek la xam ci la ñuy roy jëmm ji nga xam ne mooy sëñ xaadim yar ñu yar ñu ci taalibe yar ñu jàngal ñu arxuraan eh, maanaam teete ñu yërëm ñu yar ñu yor ñu ndax lii nga xam ne moo ne ci kër gi yëpp tey ci loxoom la nekkoon mu yor ñu yorin wu rafet tumranke wuñu xiifuñu maruñu rafle wuñu ba ñu doon ay ponkol nit ki nag bu fekkente ne dalaa defal lu baax bis jot ta ko gore woo mais sëñ xaadim ngoom ñu ngi lay ñaanal fan wu gudd wu ànd ak wér yàlla na suñu borom guddal fan wi te mu ànd ak wér li nga liggéey ci yoonu sëñ Tuubaa yëpp sotte ko na ci suñu kaw yaa ñu tungoom ko tungoom mu tiim la jëm ji Mamadou Khadim mee ngeen di wax Mamadou Khadim maa ko yar maa sëñ Khadim mii mu doon jëm joo xam ne mosuñ ko fekk muy soppi toogaayam sëñ Khadim moom noonu suñu borom ko ku ñàkk ki ñaan ci bam day xele ba tey ku ñàkk ki ñaan ku amug ku cër ku ñu sagal yàlla ko suñu borom sagal Mamadou Khadim maa ñaan suñu borom fu mu bëgg a yegg suñu borom man day sama doom yi ak ñoom sëñ Xaadim du ma du ma bàyyi may fen man samay doom moom aw ma ci wàll damaa jël lépp jébal ko sama doom la mais nag dafa baax rek gis nga ku baax mooy mooy boo ko bëggee dangay jox ku baax mu yaral la sëñ tubaab mi gën ñëpp du wax ku la jur danaa ku la yar sang bi ku la gën ka la yar moo la gën sëñ Xaadim bu ñu melee nii rek moom la kon ñu ngi koy gërëm di ko sant Mamadou Xaadim borom jaaro bi mën da ñàkk am lii immeuble bi mu tabax ci kër ci dëkk bi fii tey su ko neexoon mu dem ba cees tabax ko fa te konooy duñ ko wax ne ko dara ndax moom moom alalam mais sagal gi mu ñu sagal ñëw tabax ko ci sunu kanam yal na ko suñu borom yokk sagal te defal ko gudd fan gu ànd li mu naal ci yoon sëñ yàlla suñu borom àggale sang bi yow itam yow nit ku baax nga yéen ñi nga xam ne yéen journaliste yi fi ñëw na ngeen yokk ba yegg ko seen seen bi fu fu seen yi egg yàlla na ko yàlla sëñ Tuubaa barke sëñ Modou Moustapha yàlla na ko fa àggale jërë ngeen jëf. jërëjëf waaw jërëjëf. atia sama nijaay yow itam looy sànni ci bés bi. Hmm, xanaa xanaa di sant rek sëñ Touba sant yoonante ak sëñ Touba ak sëñ Xaadim hmm, man lekk lekk bu lekkee bu lekkee aloom war naa war naa sant coy man sant naa sëñ Xaadim am naa mbégte bu rëy ndax. Faat Ndiaye bu mu bu mu bu ko suñu xaadim indee fii ci kër gii maay jigi maay sam maay caminam teraanga bu ñu defal na ma ko teraanga bu ne suñu xaadim defal na ma ko boñ bu ñu demee bu mu am ak doom boo xamante ne doom bu am julit la julit la doom bu am yar tegin la doom bu fa bugg suñ Tuubaa la ah bon dañu war a sant yàlla ak yonent bi sant naa leen bu baax a baax a baax di leen ñaanal gudd fan ak wer ak werle man fu ma taxaw am naa mbégte bu rëy ndax boo waxee mu ne sa baat yi te loolu rek doy na doy na teraanga bu ne yaay mi saa yu ma gisee am na mbegte saa yu ma ko gisee it am naa mbégte te lépp Sëriñ Xaadim la bon Sëriñ Xaadim ñu ngi la ñaanal gudd fan ak wér yaram yal na nga wer to werle man sant naa bu baax a baax a baax a baax a baax li ci manqué nag tuuti la rek xanaa mu joxoon ma mu joxoon ma serigne bi rek ma yóbbu ko rek bo mo am fa ñetti weer sama kër rek wax de bu mako ko mën mu baax wax de ko naa bu baax jërëjëf jërëjëf kontaan naa bu baax acca papa yow ñu lay ziar bu baax assalamu alaykum yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam am nañu mbégte sante nañu wela bu baax eh, serigne bi man de de ma xamul sa tur aw Moussa njaay lii may wax fii dama bëggoon du toog fale ma di ko wax tax boo déggee ma di ko wax eh, xa du defal na ma loo xam ne yàlla rek laa koy baye waaye duma ko bayee kenn teguma ko ci loxo kenn bu loxo yàlla ak yonante bi ak Sëñ Tuubaa gis nga la jële ca kër gale bo sama kër boo waa boo bo kër eh, Baye Moussa Thioub amoo payam awuma payam kenn amul payam buur bi sax bu ko bëggoon def dégg nga mam dina ñàkk alal bu bari te nag kuraa baa nga jele fale ba mu ca jógee mu ne balaa maa toog buntu kër Baye Waly leer boñ ne nañ gis nga bu ñu julee timis bu puso rutee sama kër nga for ko kon kooku xam na ma fi ma teg am na fu ma teg ma war ko sante moo taxoon ma ñëw fii baayam bu ndaw toog baayam tigi toog ndeyam toog ma ne comme mënuma koo jot naa def cant ci ñoom bi ma ñëw fii it jaar ci moom noyu ko siyaare ko ma ne ko ndax di nga ñëw ci sa baay mu ne waaw bu ma bu yàlla defee nag ma ñëw fii tomboog yéen ma leen damaa mën a wax waaye li ñu gis sama xol bi ba ma ne cip fii dama leen wax ne ndax gis ngeen ma mu naaw ma ne ko xam ngeen ne meru ma te billaay ba tey njaay meru ma ku la defal lii ci alalam buur dugali ci loxo kenn dugali ci loxo ndax moo dindi ci alalam def ko ba ngeen di xool a ah, sëñ bi nga sante ko mënu ñàkk sant naa ko sante yàlla di ko ñaanal fan yu gudd bu ànd ak le yal na ko ko yàlla defal yal na gudd fan yal na gudd fan yéen yi nga xam ne yéen a ànd ak ñoom yal na leen yàlla sam-sam leen sam seen joboot bu sori ak bu jege yépp yal na leen yàlla sam gis nga kii sama doomi ndey la ndax soos la may soos bande yam ñëwee fii jàpp ci sama ndey baayam it malka miko mi miko mi ko mi ko mi ko meñ moog sa waa moog eh, eh, njigaan jay mi nga xam ne mooy sama maam sa njiitukaar ñoo àndoon jóge Lambaay ñëw siin kon kii mënuma tagoog moom lii moo ma moom li ma booleeg moom it xam na ko mu koy jëf to añaanu ci to bay na ci njobootam yépp joxoñ leen sama kër bu loolu ñu jóge ca bok Sëñ Aliou Mbacké mi nga xam ne setu Modou Moustapha la doomi Modou Moustapha la kon bu ñu àndee bokk lii yëpp bokk siin bokke jaxaaw bokke Touba dañoo war a sant yàlla julli ci yoonante bi sëñ bi yàlla na ngeen gudd fan yàlla <laughs> ngeen gudd fan amiin waay jërëjëf aja salaamaaleykum papa alhamdulilah rabbil alamin eh, bon mbokk yi maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam te di leen sant te di leen gërëm te di leen gën a yaakaar ci nganale suñu doom bi nga xamante ne doom nee nañu doom bu baaxee di doomu ñat yal na leen fi yàlla bàyyi am wér-gi-yaram ak gudd fan ak mujj ak rafet doom yi ni ñu mel mënuñoo ñàkk a mel noonu ndax waajur yi dañoo baax te lu ma ci wax yàlla sunu borom mi ma téye moo tax ma di ko wax te lu ma mën a séere lam ndax gis nga foofu ngay gis mbokk bu soree limbok bi nga xamantene dafa nek mbok nek dëkkandoo li mu mën xam ci borom ken meunu ko xam way ñi de no ngi len di sante no ngi len di gërem be kanama suñu borom ndax te waxoon waxon señ ba ndax diw baax ndax mbok ñaa ko wax way ne wa wa bon limbok ñi wax moy dëgg dëkkandoo dafa nek lo xamantene ne sabu morom te saabu lu mu foot mu set wecc waaye ñii dañoo yàgg depuis tukaar ba fii man mi di wax ak sama papa tudde na ah, ñaari doomam ba ci ñett ki ci mujj bàyyi Xaadim Mali la ko tudde muy moor maam Modou ngoom Awa Ngom mi nga xamante ne moo ko tudde woon mu tudd ko Awa mu tuddewaat ko Awa bu ndaw bon xam nga ne duggoo bi dafa yàgg ci jàmm ak salaam ah wax dëgg yàlla ah, rek nañu sant yàlla ak yonent bi alayhi sallallahu te yàlla nañu yàlla may nawet ak jàmm waaw yal na yàlla sunu borom mi nga xamante ne lu mu sam lool du réer yal na yàlla sam njaboot bi yëpp mag ak ndaw góor ak jigéen mag ak ndaw alhamdulilah wa rabbil alamin jërëjëf euh, sëñ Omar comme li may wax saa su ne rek nit bu baaxee mbokk yaa ko wax yaakaar naa fi ñu toog nii tey euh, liñ fi dégg bu si sëñ Xaadim toogoon itam loolu rek lay dégg ndax ay waajuram yii nii toog. seede lu mel nii ci seen doom mënuñ cee teg leneen kon dañuy ñaan rek ci dooley Serigne Touba ci magaayu Matlabul Fawzayni mi nga xam ne moom la yaakaar ak bépp xasida boo xam ne ni Serigne Touba bind na ko rek yal na mboot moom mu topp Serigne Khadim ak njabootam ci barke borom Touba jërëjëf yaaram kontaan nañu bu baax jërëjëf. ak Cheikh Rafaal ak Cheikh Rafaal sànni tuddaale yi ma di leen baaxee nag tuuti bala maa laata yegg nii gis nga monaat bàyyi mala yàlla ne wala xadd karam naa bànne aadama sëñ Tuubaa teg ci wa amal naa fil bëri wal bëri wala sax naaxu mi ne tey baati wa fa danaa la kasi mi maa xalaat naa tax ji la ay li ma bind yëpp doomu aadama laa ci gën a fonk mbonaat yorut ween du sexal doomam day lekk ba suur nag ñëw def xool doom yi ñu lekk dem cib sëriñ mu di la ñaanal da ngay yegg nii doom xel si ngir xool ko fes dee macha allah barke borom alhamdulilah rabbil alamin rahman rahim barke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim xayma doomi ali wa dalina amin inna lazina amanu wa lazina ajrun wa jaadu fi sabilillah asinu borom mu jub Saadatu Daarayni na procès yi yegg ya ca ginnaaw bi yegg ya ca ginnaaw bi yegg kontaan nañu bu baax la jaay incha allah rabi kontaan nañu bu baax yoon rek ah, ah. oui pour yow mi nga xam ne dangay toog di jaaxle doo am benn actualité ci Sénégal wala sax ci bitim réew ak Ngoy TV dangay am lépp luy actualité Ngoy TV say information day leer nañ Ngoy TV daal c'est le meilleur pare nag yemul ci lool de lépp luy événement lu ci mel ni làmb wala cant ak lépp lu mënti doon Ngoy TV pare na pour gunge la wala danga nekk mara bëgg ñëpp xam la xam sa xam-xam woowal gaaw Ngoy TV dëgg dëgg Ngoy TV le meilleur c'est donc abonné sur Ngoy TV ngir di am actualité ak information yu leer nay service commercial Ngoy TV 77 552 83 82 Voilà 77 950 33 19 ou 33 868 86 22 TV Dal, c'est le meilleur abonnez-vous am say actualité ak information yu leer TV Dal, <laughs>